may wax ni musuma nekk candidat à la candidature de Benno Bokk Yaakaar xam nga président de la république moom diggante nit ki la ak askan wi du affaire coalition du affaire parti man bi may dem nekk candidat 2019 parti bu Babacar Diop bi nekk tey maire Thiès ñoom ñoo ma investir du réew mi Donc vraiment, c'est une question de relation entre un individu et son peuple. C'est ça l'élection présidentielle. Hein? Comme li ñuy wax président de la République du du du du fauteuil la benn nit moo ciy toog amul ñaar amul ñoo nekk coalition ñoo ànd yooyu amu ci président de la République benn nit lay doon bu toog ci benn fauteuil yore dogal bi bu ko xisee doon am mën na waxtaan ak ku ko neex nag mais mooy yore dogal donc du lu ñuy séddoo président de la république moo yore autorité bi puisque moo yore suffrage donc incha allah ñu nekk candidat ci élection yi dinañu génn conseil économique social et environnemental dinañu génn Benno Bokk Yaakaar